jërë ngeen jëf mbokk yi ñu suivre ñu leen di leen siyaar di amaat mbégte jàkkaarloowaat ak yéen seen seen leader bi na sunu borom dolli jàmm euh, ñaanal euh, gàmm gi nga xamante ni fa lañ jëm yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ak salaam ñu ñëw ci jàmm ak salaam di masawaat ba tey sunu frère boobu noonu euh, nga xam ni moo génn àdduna mu di Jean di ko wax repose en paix vraiment démb xol yëpp tooy na démb moom damay wax ni vraiment Euh, li ñu naan loo dëgër dëgër jooy démb vraiment sénégalais yi bëri seen xol tooy na ñi ma saw mbokk acteurs yi nga xamante ne actrices yi nga xamante ne parce que démb ñëpp fa ñëw donc bés boobu ku nekk ñaan na ko yàlla boo demee say mbokk ak ñu dul say mbokk. démb damay wax ne armeel yi doo xamee jullit doo xamee catholique ah vraiment moo tax def lu baax rek am solo. ñu dalal nag koo xamante ni mu di Alioune Mbaye ñoom ñaar yàgg nañu bokk ay jotaay euh, yaakaar naa tey polémique bi nga xamante ni am na ci entre islam ak catholique ñoom ñaar ñuy gis nañ ko mu nekk rôle bu am solo Alioune Mbaye dama lay dalal fii ci people 221 di la bàyyi nga nuyoo ñu lay suivre. waa tawakkaltu la allah la xawla wala xawata illa billah aouzu billah bismillah inna waliyallah jëre Serigne Touba jërëjëfe Borom Touba jërëjëfe Cheikh baa mba Khadim Rasoul gàcce ngalaam Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni di sant képp kuy seetaan jamono bi people 221 di sant sunu kilifa diine yi nekk ci senegal gépp di ndokkeel Cheikh Mouhamadul Muntaxa ci màggal gi nu jóge di ñaan yàlla gàmm gi nu jëm ci kër kilifa yi koy màggal yëpp rawatina Tiwaawan ak Kawlax yàlla def ci sutura ba ñëpp dem ci jàmm ñëw ci jàmm lépp lu ci yiw ak li jóge ci màggal gi ñu wasaare ko mu law ci senegal di jàmmi biir ak biti mm-hmm. di profité sunu mbokku Maroc yële nga xamante ni démb ñi nga gis suuf su yëngu yàlla na ci yàlla def jàmm mm-hmm. yàlla na ci yàlla def jàmm yàlla ci yàlla def jàmm teel koo fay ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. ci barke mag ñu baax ñi yàlla na yàlla sotti jàmm ca Maroc gale te mu yem fa bañ a lawaat feneen asalaamaaleykum wa rahmatullah am na solo euh, ginnaaw bi ñu la jaalee Alioune Mbaye hmm. euh, sa frère bii di Jean. Hmm. Euh, Alioune Mbaye décès Jean naka nga ko yëgee. décès Jean maa ngi ko yëgee ñu baal ma ma. décès Jean ndeysaan man yëgoon naa soog bi mais dañ ko doon nëbb parce que Sénégal gis nga ni mu baaxoo. Hmm. dara day am rek nit ñi profité ci naan artistes yi nangam ak nangam. bi soog bi amee jot naa ko yëg ci Edu ndeysaan di ku baax moom it di xaritam. Mm-hmm. nga xamante ni triste ndeysaan amoon lu ko metti ba bi nuy dem di rencontré ñi war a may dret champs yëpp ñoom ñoo ko piloté ci lépp ci sutura wax dëgg yàlla bi nu demee nag ba am ci yaakaar parce que kenn xalaatul woon loolu benn xale boo xam mu ngi ci digg ndëndam nekk nit ku baax kenn xalaatul woon dina fi jóge heure bi jouru màggalu Tuuba laa jékki-jékki rek xool gis. am ko ko estati maa ngi woo Edu jotuma ko ma xoolaat gis estati yi di daw ci laa xamee nii dëgg la wax dëgg yàlla mu nekkoon métit woo xamante ni ñëpp rek du ma wax sax acteur wala actrice du ma wax comédien wala comédienne waaye damay wax àdduna wërgal képp ku ko gis rek am nga lu la metti parce que Sénégal dafa baaxoo bu bu bu lu metti amee da koy njëkk natt ci boppam. Hmm. moo tax képp ku ko gis rek am nga lu la metti parce que wax dëgg yàlla acteur la woon boo xam ni xajoon na fi. ci capacité xajoon na fi ci expression xajoon na fi ci présence sénigam xajoon na fi ci yànjam xajoon na fi ci wax dëgg yàlla taxawu cinéma ci côté bépp kon wax dëgg yàlla kooku bu xëyee rek dem ci vite fait dafay métti ñëpp parce que dalay leen ni dem na sax ak contrat ndax acteur la boo xamante ni kuy def sa film rek bëgg nga mu mu participer ci mm-hmm. kon loolu dafay métti trop mm-hmm. dëgg yàlla di ko wu njabootam gépp mm-hmm. di ko massawu Maymuna parce que tey bu ko ñëpp à travers ak Maymuna bu dina ma neex la. moom moo demoon defi casting bi ñu présenté ko ñetti photo démb rek mi ngi may wan. ki mu bëggoon a jël ba kook ni ko noo mais xaaral ma wan la ñi nga war a jël ñu présenté ko mu gis photo Hakim ni kii présence bi méngoo na ak li nu bëgg a def ci dina ma neex. ñu jël ko mu tuddoon fa Hakim. voilà ñu ko doon woowee la pilibo. may mun a ñu ngi ko koy jaale démb wax dëgg yàlla boo ko gisee xam ne am na lu ko metti ci melokaan weneen. voilà parce que doomu aadama dafa foo rawatina mu mu nga xam ko ba pare duggam ci cinéma jóge ci yow ñu ngi ko koy jaal di ko jaal bépp équipe bu dina ma neex di ko jaal bépp event pro di ko jaar waa mburoo di ñëpp rek waaw am na solo euh, yaa ngi koy wax nii léegi bokkoon ngeen série dina ma neex euh, euh, ban relation nga amoon ak moom waa Hakim jàmm nag mais man après nekkuñu ñuy gisante daal waaye fu nu mës a dajee nit ku am respect la ñaar loxo lay nuy grand nuyu wax dëgg yàlla mais nekkuñu parce que man dafa amoon kersa sax ci man nekkuñu ñu daan gisee chaque jour mais biir série bi lépp ñu ci nekk ci jàmm bu ñëwee doo dégg mukk moo def naa ko correct la woon et nit ku calme la woon et lépp lu muy def dafay jug def ko ak rigueur def ko ak passion bu ci paree demaat toog doonu mukk artiste sax dina tourner avant moo dem mu créer buur bruit buy tànkal ñenn ñi mais nit ku amoon discipline la wax dëgg yàlla ñu tourner ba saison bi jeex mosuñu am benn baay si wala nga dégg ni jàppante na fa kenn mu mel ni bokk na ci ay témoignages yoo xam ni gënoon nañ koo xam ci côté social. Hmm. waaw parce que man yàlla dogal na dama toog nii rek di seetaan télé seen leen ñu def benn acte bu rafet Edu sax laa woo téléphone. ma rafetlu ko tombeek tamit ñu invité ma guddi gi bu ma juumul ma toogaat waxaat ko fa parce que yu baax yi il faut ñu di ko fësal. Hmm. parce que ay acteur yu jóg dem ba camp xool besoin ña fa nekk ba ci machine wal nga xam ni loolu du caaxaan ñu benn ba fa ne doyul ñu fexe lijjantiwaat beneen. Mhm. loolu sawaay nit bu ko defee da nga koy da saluer ci laa jël sama téléphone jour boobu laa njëkk a dégganteeg Edu. Mhm. woo ko wax rafetlu lu ñu def parce que li nga bëgg def bu ko say naw la defee da ngay kontaan. Mhm. te ñun ñëpp ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo ko war a bokk bokk parce que li koy waral mooy tey bu ñuy ŋaañ ñun ñëpp la ñuy ŋaañ kon bu ñu xoolee ba jéemu ñoo bokk ndey ak baay bu dee lu bon it koy xëpp. Hmm. kon ñoom bu nu jugee def euh, euh, euh, acteur social def lu rafet loolu gis ku ne xam ne jigéen ni mu fragile bu nekkee ci biti waxuma la mu nekk ci kaso ñu dem bépp jumtukaay bu jigéen war a jumtukaay ñu dem yóbbu ko ba boo xoolee bagage yi gisagoo doo xalaat ni lii ay acteur ñoo ko fi ndi kon loolu dañ ko rafetlu man rafetlu woon naa ko bien avant muy génn àdduna rafetlu naa ko bien avant parce que lu rafet moom boo gisee da nga lu rafet la fësal yu rafet yi nëbb yu ñaaw yi kon nit ku def loolu ak taxawaayam ci réew mi moo tax bi mu demee mu metti ñëpp mm-hmm. metti ñëpp mm-hmm. surtout mu deewee ndaw aussi ak yaakaar gi nit ñamoon ci moom oui moo ci gën a metti parce que wax naa la avenir la woon ci ci ci ci théâtre Sénégal moom ak ay moroomam ba pare ñu nekk ci ñoo xamante ni chaque jour dama leen di citer parce que dangay gis artiste bu naan non xam nga ku dul ko artiste warul jouer loolu c'est faux tey un artiste devenir un acteur un comédien devenir un acteur un acteur tamit de euh, euh, kii casting bi tamit benn tey guy gi mën na ñëw tamit nekk acteur kon comédien bi moomul acteur bi. Hmm. comédien bi <coughs> théâtre sur scène la moom tey bu bëggee def acteur dafay ñëw. parce que théâtre sur scène ak acteur ba tey bokkul. Mm-hmm. parce que théâtre sur scène looy def da nga koy amplifier. Mm-hmm. bu dee lii mën nga joxoñ tuuti ñu zoom ko. Mm-hmm. kon même comédien bi dafay ñëw pour jéem a concentré wu pour nekk acteur. ni ni sivil bi ñu jël ko ci kastin mu jéem nekk acteur. kon li xew foofu mooy réalisateur bi na baax rek ak scénariste bi. moo tax souvent te ñoom seen taxawaay damay wax ne bis bu théâtre Sénégal di développé ci ñoom lay jóge surtout parce que doo leen gis mukk ñu def bruit. te am nañ ay initiative ba pare ñu présentable lan ñu nit ñi respecté la. loolu leen mën a waxal. doo leen gis fenn foo xamante ni woowoo leen fa. kon ñu mel noonu boo leen amee da ngay fexe ñu jege si. xool naka ngay def ba ñu yëkkatee ndoo a aar bi yu jugee ko a jëm bee. parce que ñoom loolu mooy seen initiative ba bërki démb rek euh, Edu mi ngi may junj lu mel noonu ci lu nu war a waxtaan. te loolu mooy affaire te souvent. ñi ñuy woowee ay comédien sax ñu ci bari seen intérêt personnel la ñuy këdd. xam nga kon boo amee ñu mel noonu ñëw. te loo xamante ni li ngay wax amul nan bokk ndey nan bokk baay hmm. bu nu bàyyi ba dee am rek ku ne di solo personnage di triste di nangam hmm. dee jarul di triste hmm. xalaxal mawta wal xayaat ci yàlla lañ jógee te fa la ñuy dellu moo tax yàlla ni bu ñu jógee mooy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun parce que ruux gi mooy dem lii mbalit la dañ koy s sunu bopp il faut ñuy jéem a nekk nit balaa dee di am parce que tamit bëri na ci fautif mooy dee am rek nga bëgg a nangam noo diw nangam te fekk yow bi ngay dund sax yaa doon ko doon loolu tamit nan ko moytu ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi preuve bi wane ne ko dëj bi xol yëpp lu dugg def ko métti euh, aussi tamit ñu gis loo xam ni daanaka du ma ni bëriwul waaye néew na lu ñu koy gis hmm. cimetière boo xamante ni euh, vraiment da fees dellu góor ñeeg jigéen ñi ñëpp di jooy mu mel ni demu gen bi euh, vraiment tout waxuma la artiste mais tous na sénégalais yi waaw mooy li ma la wax sànq rek maanaam monde bi yëpp tey ñi mënoon dagg billet jóge bitim réew bu ñu ko mënoon day def. fépp la metti parce que tamit jëmm la joo xamante ni ku ko gisoon rek da ngay yeesal sa cofeel mu jëm ci moom. jëmm boo xamante ni boo ko gisee ci solom dooni seeka ci géewam dooni c'est-à-dire ci bëteem dooni ek nangam maanaam lépp rek macha allah yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam ku amoon présence scénique la. Mhm. nit ku mënoon li muy def la ku boole léegi na ku mel noonu bu fi jógee kenn ku ci nekk dafay am lu ko metti mais sens la tamit ci artiste bu fi jógee parce que tey ñooñu ñëpp mu am bénéfice ñu ñaanal ko bu siiwul du ñu am bénéfice boobu. Mm. moo tax il faut ñu arrêté nit bu génnee àdduna rek ñu jëm ko wéer ci sii wala ca la nit du dee mukk te yàlla reyu ko. Mm-hmm. nit du dee te yàlla rey ko nit du am dara te wërsëgam yàllaa ko ko jox. Mm-hmm. nit nag bu fekkee dafa génn àdduna surtout. ñi niy woowee ay sëriñ te nu nekk ci internet yi bu demee ba ku dee ñu wut fu ko teg ana palaasu yàlla. Mm-hmm. et puis dina am koo xam ne amul matière googu dinga ko tiital tiital goo xam di nga yàq àddunaam te jaru ko mm-hmm. te yàlla mi la bind àdduna film rek la taxawee. Mm-hmm. yàlla mooy producteur bi. mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy acteur principal bi. saytaane mooy chef de bande bi. ku juddu am nga rôle loo fi dund séquence la yàlla nag pour mu créer un séquence su dee il faut mu créer objectif mooy li ko malaaka bi wax jox ma nag yóbbal gu may mën a rayee nit ba duma ci feeñ mu ni ko jëlal accident hmm. jëlal feebar jëlal tension jëlal nangam yooyu la mais ku dee yàlla moo la rey na nanuy dellu ci yàlla jox ko lim moom parce que sunu borom subhanahu wa taala du caaxaan mais lu am nga wéer ko kenn boo xëyee daj ci 500000 yaa ngi xool ban saafara nga mujjee sangoo kon ana place yàlla hmm. te pourtant même ki lay ñaanal day xaara ñu ñaanal la yàlla moo tax delloo lépp yàlla xam ni lépp lu nit di def sunu borom moo tax waaye bu dee amee rek ñu commencé non nan def nangam na def dee daf ñu war a fekk ci yàlla. Mm-hmm. ñu xam ni yàlla moo nu bind te fële moo dàq fii. Mm-hmm. nit nit ñi dañuy dee. Mm-hmm. ñun dañuy dee keneen day dee. parce que yàlla daf ñu bind. pour dee programme bu fi nit def mu sotti dafa dëpp ak programme yàlla. d'accord loolu lan doon wax nañ ci bàyyi xel xam ni ku dee yàlla moo la rey. d'accord bala maa ñëw ci polémique yi aussi ñu gis ni moom tamit nekk na koo xam ni ku amoon relation ak ak yaakaar naa ci desem bi sax ñu mel ni man ci lañ xam ni sax kii catholique la. wallaahi man xaw ma ko woon. Mhm. <laughs> man. Mhm. tourné nan fu ne mosuma xam ni catholique la. Mhm. barki yàlla. mosuma ko xam. waaw xam nga tey dafa am loo xam ni dafa yàgg senegal di benn taarix di ixsaan muy islamu jullit chrétien beneen bi li tax ñu war a bennoo mooy àtte yàllaa ko yor yàlla rek mooy àtte yàlla moom moom àjjanaam moom moom sawaraam. nit jaamuwul luy tax mu dugal la fa nitit mooyul luy tax mu xañ la ko mm-hmm. ndéem àdduna la ñuy wax nit doo ko fal imaam ba pare ni ko saar bii ngay tari mm-hmm. kon yàlla nañ ko bàyyeeg jaamam yi lu ko neex mu def ci mm-hmm. ndax yërmande dégg naa san la te benn la wàcc àdduna fu waaye amee mi ngi ci quatre-vingt-dix-neuf yi mi ngi ci moom waaw waaye te yàlla pour pour matam gi dëggu faaw moom sunu matadi gi mu jéggal ñu ci mais bu fayentoo mel ni ñun kon ñun kon matam toujours lay dëggal ci ñun ngir mën nu jéggal voilà Hakim nekkoon na koo xamante ni démb rek maa ngi dajeeg ndeysaan ki joué woon monsieur le maire ci dina ma neex te joué woon ak moom ndeysaan mu kott ma di ma Hakim taalibe Serigne Touba la doon wooye boppam ay Serigne Saliou la doon wooye boppam voilà nga xamante ni te ku tedd ki Serigne Touba moo bindi fursi mm-hmm. ci Mariama la ko jëmale mm-hmm. te dégg nañ ci taarix ñu ne Serigne Touba Insa ibnu Mariama da koo dénkoon njabootam moo tax ngay dégg Mariane bu Sëñ Fallu nangam ak i nangam voilà d'accord euh, ci loolu nag laay ñëw ci polémique yi ñu gis ni bi décès bi amee ma na ay polémique yoo xam ne jot na juddu ba yenn oustaz si génn euh, di wax ni jullit warul ñaanal chrétien euh, jullit warul dem ci ay armeel polémique yooyu noonu naka nga ko jàngatee. waa jàngat bi du sori xam nga tension mooy tax nit ñi seen yërmande day tax sax ñu defee ni oustaz bi tey oustaz bu fi wax waxul bu dee oustaz Modou Fall waxul waxam waxul waxi baayam waxul waxi maamam bu dee oustaz Mouhamed Mbaye sopp bi jamil waxul waxi boppam waxul waxi maamam nit nag bu dee yàlla wax nangam lu xol yi tàng-tàng nanu bàyyi xel li yàlla wax parce que nangu li yàlla wax sax dina indi yërmande ci ki dem bu fekkee yàlla moo ni bu kenn ñaanal nangam non mais nanu nekk foofu parce que tamit ya wax yàlla amul seek amul c'est-à-dire nit nag maanaam mbir dina am Sénégal toujours santiment daf koy virer mu bëgg yóbbu mbir fenn mais lu nu topp topp sentiment nan bàyyi xel yàlla ci ñun. parce que tey jullit du ñaanal catholique tekkiwul catholique bi dem <laughs> yàlla mbugal ko. parce que yàlla moom moom jaam fu ko neex la koy def. mais nag lu yàlla wax moom ala kulli al ustaaf bi buñ ko laajee loolu lay wax léegi nag bu nan ko ixsaanal buñ ko yóbbu fu garaaw parce que dara garaawul. waaw da koy nuru mais du ko doon parce que tey ku ne xam na ku mel ni oustaz Modou Fall wala ku mel ni oustaz Mouhamed bu fekkonte ni ci sentiment rek danaan la ak yi ma nga te bu ko mënee dugal àjjana da koy dugal àjjana parce que ay nit lan yu am présence ci réew mi te luy defar rek lan yu wax mais koo laaj mu fekk yàllaa ko wax ci alquran wax dëgg yàlla wax rek la lay wax yow nag yaay fexe indi sa xel xam ne am nga naqar waaye nag waxi yàlla kenn du ko puus kenn du ko randal parce que tey ku ne xam ne ni demu akim bi ñëpp la metti Sénégal nag souvent bu ko dara méttee rek day bëgg doo dëgg mais day day bëgg boo génnee nga wax ko arrangé te lii gën a affaire yi mooy euh, Sénégal nit ñi day topp commentaire ba def erreur tey bu ñaari oustaz waxee loo xam ne dëgg la oustaz bu ñëw danga war a appuyer foofu ni ah ay la yéwén nag yàllaa ko wax mais bu fekkente ni ustaaf bi dafa wax yow nga ñëw gis nga ni am na ñu ŋàññ nga bëgg ñoom ñu faral la ba nga waxee neneen ustaaf yi ñoo lay gën damit parce que ñoom li yàlla wax lan wax ku leen ci mérite yàlla kontaan na ci ñoom mm. te yàlla bi muy wax ku lu xaq wala kaana mu ran waxal dëgg doonte dañ lay rey kaa yu mel nii moo moo taxoon muy wax mais ñooñu ku leen gis xam ni duñ wax lu ñaaw duñ ko def nettali li yàlla wax nag du njàmbaaru te du ñun bindkat yi la ma ciy saluer waa Evenprod ku mel ni euh, Ibrahima ak euh, borom daaru maam Thierno Ibra Fati ñoom ñoo ko bind man yaa ma ko fàttali wallahi fàtte woon naa ko mm-hmm. xalaatuma woon ni sax man joué woon ak Hakim beneen bu dul dina ma neex mm-hmm. xalaatuma ko woon bi nga ma waxee sax maa ngi lay xaar naa la indi ko di la <laughs> defe ni da ngay da pour bëgg ma jël mm-hmm. mais bi nga ko indee da ngay gis ni li ñuy wax nii teg tek lan doon wax te boo xoolee moom moo génne ci làmmiñam lakkum diinikum wala diin moom sax. waaw ba pare ni yu mel nii mooy yàq Sénégal kon kooku ay la yéwén nan ko nan ko gungeek la mu bëggoon moom. parce que ci dundam xeex na loolu. moo génne la kum diina diini boo xoolee vidéo bi après da da ngay dugal vidéo bi. parce que mm-hmm. extrait bariwul. Mm-hmm. moo ngi naan lii moo yàq Sénégal na ku ne yem ci diineem man mii am naa ay frères musulmans. Mm-hmm. te man moment boobu xaw ma woon ni chrétien la pour man dafa jouer la personnage. kon nga gis ni kon kooku ku am dafa am ñoo xamante ni même bu la dara di nuru lu naqari ixsaanal ngir ñu dem léegi nag waxukaay yi dafa bari ba ku nekk di wax mais am na yoo xam ni daal nañ ko rafetal. mais li yàlla wax moom koo ko laaj loolu la lay wax. mu mel ni mu mel ni mu mel ni yaa ngi koy wax léegi ah, lii nii nga xam ne moo ni polémique bi doon na ko xeex. bien sûr doon na ko xeex ba ci ay abimaam ba ci yaa ngi koy wax léegi daan na wooy Serigne boppam ba ci série bi ngeen joué man bi ma ko seetaanee démb ma ni waaw mais est-ce que série bi nii nit ñi seetaan nañ ko ci ay waxam mu ngi naan li mooy yàq Sénégal jullit ba chrétien bi ñoom ñëpp benn lañ waaw du may wax ni moom man am naa frère jullit kon yow naa parce que boobu man maa solu woon personnage boo xamante ni parce que théâtre boo xoolee dafay dafay dafay dafay dénoncé dina wax boo wax ñëwagul théâtre dina wax dara mu xëy ne xam nga lii ñun bi ñu koy ku ne woon ak mi après mooy gaañu lii nekk actualité da nga naan du ma ko joué Mm-hmm. parce que duma bëgg Hakim gaañu. Mm-hmm. ku ne ma woon man maay gaañu mu nekk tu Hakim danaa la du ko joué parce que bëggul Alioune Mbaye gaañu. Mm-hmm. léegi nag gis nga mais yàlla li ma lay wax rek àdduna scénario la séquence bu jot rek mooy fës. nga xam ni moom gis nga taxawaay bi mu ci am waxee dënn ba sëriñ bi wax ak moom tiit. mu mu volonté wan ko ni ko lii Sénégal moomu ko Sénégal lim moom mooy ñu bokk ndey bokk baay ndekete demam. polémique boobu lay am kon nga xam ni yàlla noppi na ci ñun li yàlla wax nag nañ ko gëm dina tax sax yàlla yërëm ko parce que yàlla def moom ala kulli moo war ñëpp wax yàlla amul seeka amul cest à mm-hmm. bi sallallahu wax dara ñu wax ustaas ba laka sudul noonu parce que waxul waxi boppam tey ustaas bi bu fekkoon waxi boppam la wax ñun ñëpp dañuy génn ni ko li nga wax du yoon kazabta waaye nag waxul waxi boppam te dañ ko laaj mu wax wax yàlla ustaas bi lu neex nit ba mu wax loo xamante ni yàlla waxu ko mm-hmm. nit ñi Sénégal il faut ñu arrêter nit ki di wax nga bëgg mu wax li li li nga bëgg a dégg nañuy bëgg a dégg dëgg même bu fekkee nekkoo ci position boobu parce que li ñu wax ak yërmande yàlla comme yàlla ak yàlla li ñu wax ak ñun ñi sunu xol ak yim ne ci comme yàlla ak yàlla mais nag loolu la yàlla wax voilà am na solo Aliou Mbaye kontaan naa. Mhm. ci ci jàkkaarloog yow par rapport ak série yi nga xamante ni géej ngeen ko du ñàkk ay yoo xam ni euh, di ko def ci moom xam naa foofu rek laay jeexalee ñu tàggatoo incha allah. waaw macha allah di di nit la koo xamante ni li ma gën a tuuse ci moom ñun ñi ngi defoon ni ñun rek la amal jàmm mais demal ci waa koñom bi ma seetaanee seen interview. Hmm. c'est extraordinaire te dëkkandoo dafa fort. yonent bi sallallahu wax ci dëkkandoo ban yaakaar ni dëkkandoo day doon kon moom jine ci Sénégal loo xamante ni yërmande yàlla yaatu na yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam xam nga mu nekkoon nit ku humble gis nga Jakarta maan bi nee na moom sax moo ko xottil ci tabaski gi kon kooku nekkul ci ñun mais bañul li nu nekk. Mhm. am na ñoo xam moo leen jox paasu màggal kon nekkul ci ñun mais bañul lu mu nekk te nag par ah, par par lu aayul par moo aay. cest à nit foo nekk nga dëggal ko xam nga lu bon naa feq mhm. mooy nekkoo jullit nekkoo nangam. mais nga nekk ci mbir ba dëggal ko te bu nu fàtte ni Isa ibnu Mariam yàllaa ko yebal de yàlla moo ko yebal. Mhm. muy yonenti voilà comme ni ñëpp nekk yonent te kenn koo ci contre ci ñu yàlla yebal yàlla ngay am règlement de compte mhm. moo tax daal nan rafetal ñun li nu moom mhm. jaam ñi ñu bàyyi leen ak seeni borom mhm. Sénégal nag ñu revenir sur terre ci côté sutura ak ci côté jéggal Sénégal yàlla day def ay peine pour suturaal nu ñun dañuy def ay peine pour xawi suturay nit il faut éviter ça li yàlla wax yépp ci nit pour mu bon ñun xamuñu ko bay bonal nit Sénégal ngay def téeméer yu baax benn bu bon duñ la ko pardonné ñu sànni la. Sénégal boo ni woon tey guy gi nangam ku ñëw dure ah man de wax dëgg yàlla xamul ko noonu waaye ku ne daan man kay ni ma rombee kii ni moo yàgg na ci cest di dire du ñu nit. te pourtant koo fi wax mu ne sopp nabi te fekk soof nabi yi ñoo fi bari parce que yonent bi sallallahu alayhi li mu daj ci métit xoolal la mu daj màkk gii tey ñun ñëpp bëgg nañ fa dem xoolal lan ko fa def. di dem ci mbokkam ba ni ko xaaral ma ñëw dimbali la ndek day woowi ñu ko sànni xeer woowi ñu ko gaañ woowi ñu nàccal deretam am na koo xam ni xeer la tee diir ko ci bëñ bi mu siggi mu dóor ko ci moom sallallahu alayhi wa sallam te teewul bi jibril ñëwee ni ko sa sa borom nee na nga wax piip ma alak ñi mu génn xéewal ñu defe ni lan moo tax muy génn xéewal mooy il suffit que yàlla di xalaat alak njaboot xoolal jàngat boobu mu Moustapha mm-hmm. mu ne na leen jéggal ndax seen ñàkk xam moo tax tey màkkaa ngi bu fekkoon yonent bi sa alayhi wasallam dafa fayantoo màkk du mhm. te yonent bi lan moo tax yàlla di dindi milliard pour fësaloon ay jikkoom mhm. yonent bi bu fekkoon am milliardaire jikkoom du feeñ mhm. mais tey Sénégal xamatunu jikko ku am lanu xool xamatunu jéggale tey ku ci yor baatin yaa ngi yàqamte nit tooñ la ba nga def ko ko ba di ko bàkkoo te koo wax danaan damaa bi sallallahu alayhi wasallam te yonent bi nan ko roy fi mu nekk yonent bi bo daawul ñàkkeer sa nit daawul boddi kenn ku oyofoon la ku baax nga xam ni kenn du moom ñëpp ci ginnaawam la ñuy xëccoone mais kenn xalaatul jiitu ko mm. kon ku mel noonu nag bu nu ko yàlla baaxee ñu am ay mag yoo xam ni kenn ku ci nekk nord sud da nga faa taxawoon pour pour yeesal loolu nanu bàyyi xel loolu dem nañ ba mag ñi li leen indi sax ñun xamuñu ko dañuy parparloo rek mm. kii naan nangam te yow wóoru la ni tiijaan nga wóoru la ni murit nga liñ gul la ni weeral nag boo fa mënta weer sa yónneewul fu ñu ko takkee kenn mënu ci waat ni man ku tedd ki nangul na ma sama murid saadix wala taalibe cheikh la ñu bëgg a parparloo te mag ñi loolu indiwu leen woon li leen indi mooy leeral diine ji li leen indi mooy taxaw diine ba ñàkk ko ba kenn du ci dugg mais léegi dañ ko mujj def ay arme di ko xeexee il faut éviter ça mm-hmm. nanu dellu ci ca càllawle ga mm-hmm. xam li fi indi mag ñi xam lan moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yónni ko ci ñun yàlla tagg ko ci maamam tagg ko ci naam ci jikko la ko tagg kon jikko mooy valeur mais boo amee jikko te amoo xaalis sax kenn du la jikko bon ñu indil la jikkoy nangam nit ñi di daw xaalis tax kenn xamatul kan mooy kan kenn jéemut a ràññee kenn te pourtant luñ fii bàyyi la. moo tax nan delloo siwaat xel yi ñu fexe doon ay jullit yàlla nañu ko yàlla def fexe doon ay soppe yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ko yàlla def parce que dëkk boo xam ne moo am sensu ñu fay gàmmo mm-hmm. kon dëkk boobu ñëpp war nanoo làmboo ko rapproché solo mm-hmm. kontaan na tey sa mot de la fin ci bi waaw di sant bu baax nag Euh, kilifa yi nga xamante ni wax dëgg yàlla dañuy jàpp ci ñun ci baatin di sant kilifa yi jàpp ci ñun ci saayir rawatina Cheikh Ahmed Tidiane Dem dëkk ca Parcelles Unité 15 di nit ku baax hmm, ñu ngi koy sant bu baax di ko di ko di ko ñaanal yàlla màggal gi laxasaay bi ma sol sax moom ma ko jox hmm. di ñu jàppale bu baax di sant Serigne Demba Senghor bi nekk Maris nga xamante ni macha allah day dimbali jaam ñi ci yàlla ndax fekk jigéen li ma gën a marqué ci moom ku jigéen koo xam ni dañ koy woowee ku xelam dem ba mu tëdd ci mbedd ñëpp di ko fa romb mu romb fa aalu ni kii dinaa ko faj nit ñi di ko ree mu jël ko faj ko ba kooku delluwaat ci société bi kooku tey doom ju mu am njaboot gu doom ji am moom dina ci am yiw ab kilifa sëriñ noonu lay def mais sëriñ du ërtal ñi nekk ci àdduna da ngay xam-xam bi la yàlla may parce que ñaan yàlla nga wax danga nga cey delloo ci jaamu yàlla yi sëriñ Demba Senghor ñu di la sant hmm. di sant bu di sëtu Seydi Hadji Malick nekk ca Nord Foire uh-huh. mm-hmm. ah nga xamante ni góor Gora Al Amin moo tax ma xam ko muy kilifa gu baax maa ngi koy sant bu baax a baax. di sant bu baax tamit na Ousmane Ndiaye démb rek ñoo àndoon ITV e ñu invité ko fa. Uh-huh. muy borom xam-xam bu sell borom xam-xam boo xam ni macha allah yéene na ko ci jaam ñi te boolewul dara ki wax yooyu lan soxla ci Sénégal. di sant bu baax a baax a baax bépp autorité boo xamante ni El Hadj Macky teg na la fi. di wax nag nanu gore ci ginnaaw président Macky Sall. moom ngor gi mu am xale la mu xam ni réew mi lan war a mettre en valeur ba tax mu ne bàyyi naa or que constitution may na ma ko nanu am ngor googu ba indiwaat dekkil ngor ga mu tàmbalee woon ñu topp ci am kum fal ñu ànd ak moom ndam yàllaa ko yor yàlla nañu ko yàlla jox asalaamaaleykum wa rahmatullah ah, na solo mu ngi noonu di leen jaajëfal man nag xam naa ni euh, tey moom sama cameraman bi noo def nga ma ma sant ñaari nit wala ñetti nit daaw ma sant mais xam nga eh. mënta ñàkk di sant al akim borom sarax yi vraiment ah, nga xam ne jàmbaari réew mi nga xam ne damaa dem Touba ah, jàmbaari réew mi jox ma chambre climatisée vraiment ah ma mel ni maa moom kër gi lu ma neex ma def fa di gërëm waa kër ga ñoom xaadim ñoom soxna ak xale ya fa nekk moo moo moo ñoom Baye Dame ñoom Mambay di ko ñaanal di gërëm tamit Sadio Sadio mm. vraiment nekk nekkul ci kër ga yàqu ko bi ma ñëwee alal ju bari la yëkkati jox ma mm-hmm. keroog bi ma waree ñibbi mu ne ma guy gi ma ne ko naam mu ne ma déedéet sama oto nga yéeg kaay fii ñu ànd a dem ah, taal ma kilim Sadio ma koy nuyu di nuyu vraiment ñaari soxnaam yooyu waaye nag di gërëm madame Mbacke nga xam ne vraiment dafa baax bëggul sax lii may def waaye nag mënul ñàkk ma wax ko madame Mbacke maa ngi koy sant bu baax a baax ko gërëm vraiment euh, Aline mhm. benn émission lañ mos a xamante. ndeysaan may def social. Mhm. benn femme boo xam ne dama ko romboon ci tali bi jël ko. ndeysaan madame Mbacke woo ma diw ma ne ko waaw man ma sa numéro ma xaalis bari. ma ne ko noo tudd envoyé ma sa photo mu ne ma eh, pour lan. ma ne ko li nga def nii parce que boobu xaalis bari na. mënu ma defuma ko pour nga wane ma. dama ko def te yàlla tax fexeel ba lii na ci jot Mm-hmm. ba tey ji ma wax ak yow mosuma koo teg bët ndeysaan te tey la ko gën a mën a def ndeysaan donc ñu mel noonu wax dëgg yàlla ñu mel noonu dañ koo war di wax d'accord mu ngi noonu parce que sa euh, akim boobu ngay wax tey mm-hmm. kilifa gu baax goo xam ni boolewul dara ki wax mm-hmm. man bi tabaski gi jub see ma dem fa bi mu ma joxee damaa waaru sax njëgu xar laa doon waaye dundaat naa ci weer te pourtant koo ko waxul du ko xam mhm. muy jàmbaar joo xam ne bu réew mi jaaxlee ci côté positif dañ koy dégg mhm. bu dee ci match dañ koy dégg loolu lay soxla kilifa mhm. moom it di ko sant di sax tamit minicar bu Serigne Saliou nee naa la Touba teral fa nit yomb na waaye kilim yombul de minicar bu Serigne Saliou kilim ba pare chaque minute ab géwal nga ne ko xaaral ma rey xar mi moo tax ñi ma àndal ñoo ma jug yenn dugal ci oto ba taal oto ba waaye nar woon ñibbisi <laughs> ak xaadim rakkam ji Touba. Mhm. lu ne def nañ ko fa macha allah di sant bu baax Serigne maam Cheikh. Mhm. bu maam Cheikh Ibrahima Fall. Mhm. ci moom laa gis kilifa goo xamante ne day kilim saalam ba mu baax defar ndawali toog fële boo gisee doo yëg ni kii sëtu maam Cheikh Fall la.